alhamdulillahi ala ihsaanihi wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinaanihi wa ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu taadiman li shaani wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu daaci ila ridwaani fa salawaatu llahi wa salaamuhu alayhi wa ala alihi wa ixwaani amma baadu mbokk jullit yi lislaam day diina la joo xam ni suñu borom subhaanahu wa taala ci moom la jóge moo ko wàcce indi ko ci jaam ñi li ko tax a ñëw nag du lenn lu dul mën nga ko résumer ci defal doomu aadama lu koy jural texe ci àdduna ak alaxira teg doomu aadama ci lu koy jural teddaange dund dund bu tedd dund bu texe ci xam lan moo tax ñu indi ko fii ci kaw suuf ndax li composé suñu nekk fii ci kaw suuf ñett mbir la moo ñu séq benn bi mooy xel mi muy l'intellect di l'esprit beneen bi ci des mooy loo xam ne instinct lañ koy tuddee mu sauvagerie bi nekk ci ñun di suñuy jëmm suñu yaram beneen bi ci des mooy wàllu xol lislaam ñetti yooyu yëpp daf koy yittewoo di ko tàggat di tàggat xel mi di ci def xam-xam bu am njariñ buy tax nit ki mën a niitlu ci xelam ba xam njub li jóge ci borom bi subhaanahu wa taala xel nag li ko mën a alimenté énergie bi ko mën a alimenté ba mu amal borom njariñ mooy wax yu bi jóge ci yàlla subhaanahu wa taala beneen énergie bu ñu def ci xel lu dul loolu da koy yàq leneen li ci des mooy li ñu tuddee l'instinct muy yaramu doomu aadama beeg ay bëgg-bëggam bëgg-bëggam yooyu bu dee dafa jiital xel mi xel mi ak bëgg-bëgg yi dem boobaa doomu aadama bi dina yàq ci kaw suuf nu raw nu bàyyi may di yàqee ndax dafa am beneen troisième partie ci boppam bu mu fàtte bu mu bàyyi te mooy xol bi te mooy bakkan bi te mooy li yàlla gënale ci leneen lu dul doomu aadama mooy li yàlla wax ne laqad karram naa ba ni aadama mooy nite googu nekk ci moom particularité boobu yàlla def ci moom te joxu ko beneen beneen beneen bindeef ci kaw suuf loolu mooy li yàlla def ci xolam loolu mooy mbaax gi war a nekk ci xol bi nga xamante ni bi moom mooy taawu ñaari yooyu di xel mi ak jëmm jeeg ay bëgg-bëggam xel meek li ci mën a nekk lépp ci loo xam ni tukkal na àdduna bëgg-bëgg yi nga xamante ni amul fu mu yem am na ci loo xam ni sax day dem ba dafay farsonal borom waxuma dina ci lor keneen waaye moom sax da ciy lor boppam kon ñaari yooyu bu fekkente ni dellu si waatul ci bakkan bu baax ci xol bu baax boo xam ne ay jikko yu baax a fa nekk doomu aadama day yàq ci kow suuf moo tax ñett yooyu yëpp lislaam yittewoo ko yittewoo xol boobu nga xam ne ay jikko yu baax a ci war a nekk ngir bakkanu doomu aadama bi mën a mucc bakkanu doomu aadama bi mën a baax suñu borom subhanahu wa taala wax ne moom moo sàkk doomu aadama indi ko fi ci kaw suuf muy ñëw indaalewu fi dara xamul dara mënul dara yàlla jox ko ay jumtuwaay teg ko ci yoon woo xamante ni dina mën a màgg ci ñetti partem yooyu nga xam moo ko constitué wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuuna cheyan fa jaala lakum alsam'a wal absara wal afidata laallakum tashkurun lislaam nag ni mu yittewoo wàllu jikko yu baax yooyu di ci yar ay ñoñam fu mu toll di leen ko fàttali di leen fàttali ne seen diine sax ci jikko yu baax lañ ci rawante akmalul muminina imaanan ahsanuhum xuluqan dañuy faral di wax ne yàlla bi muy tagg yonente bi alayhi salatu wasalam ci ay jikko la ko tagg waaye abdullah ibn abbas daf ne wa innaka la ala xuluqin azim ay ala diinin azim yaa ngi ci ay jikko yu rafet mu ne li muy tekki mooy diine ju rafet ndax nee na jikko yooyu ko yàlla di taggee mooy diine kon diine lépp jikko la diine lépp jikko la nga gis ne kon lislaam lu woo jikko yooyu la ndax moom mooy yëkkati doomu aadama def ci moom ak mat matuk doomu aadama nekkul ci jëmm ji matuk doomu aadama nekkul ci leneen waaye mi ngi nekkee ci bakkan bi nekk ci jikko yooyu jikko yu rafet yooyu ku raw na la waaye jikko yooyu léeg-léeg nit ñi dégg-dégg bi ñu ci am moo yaakaar ni rek mooy jëflanteek nit ñi jëflante buñ ne lii lu baax la te delluwul ci yàlla nattuwaayu rafetu jikko mooy mu tegu ci kaw ngëm yàlla tegu ci kaw mbaax gi yàlla gërëm paali la nit ñi di gërëmee ndax nit ñi léeg-léeg ñu gërëmantee loo xam ne yàlla gërëmu ko moo tax kon nattuwaay bi dëgg-dëgg mooy diine ci la ñuy xamee baaxuk jikko am déet bokk na ci méthode yi nga xam ne lislaam dafa koy jëfandikoo ngir yar ay ñoñam ci jikko yu rafet mooy di leen ci ñaax di leen wax li ci nekk ci mbaax yonente bi alayhi salatu wasalam naan ñu li ëpp ci luy dugal nit ñi aljanna yowmal qiyaam mooy ragal yàlla ak jikko ju rafet ne borom jikko ju rafet dina dem ba yàlla di ko bindal ci yool yool yu toll ne li nga ki nga xamante ni dafay woor bëccëg di taxaw guddi gi di naafila di am borom jikko bu rafet bi yàlla di ko ko bindal ci rek ay jikkoom yu rafet xam nga loolu bu ko ab jullit déggee te bëgg lu baax dina góor góorgóorlu kon ci li koy may loolu yonent bi alayhi salaatu salaam di ñu xamal ne ki gën ci ñun gën ñoo mat ngëm yàlla moo ñu gën a rafet ay jikko waaye tamit noonu la ñuy moytandikuloo jikko yu ñaaw yi jikko yu safaanoo yi dem ba ñuy wax ne koo xamante ni bii dafa am ay jikko yu ñaaw yoo xam ne ma ngi cay lor ay dëkkandoom ak képp ku mu nekkal kooku gëmul yàlla wallahi laa yuminu wallahi laa yuminu wallahi laa yumin qiila man ya rasulullah qaala man laa yamanu jaaruhu bawaiqahu loolu yëpp ngir moytandikuloo jullit bi jikko yu ñaaw kon di ko ci loo ci jikko yu baax yi waaye di ko moytuloo jikko yu ñaaw yi mu bokk ci yiñ nettali jële ko ci moom nettali gu wér bu nekk ci saxiixul buxaari ak saxiixu muslim yonente bi alayhi salatu salaam di ci wax lenn ci ay jikko yu baax yu rafet yu jikkoo yu nit ki di jikkoo fii ci àdduna ak lam koy jural ëllëg ci àllaaxira mu tudd ci juróom-ñaari critère juróom-ñaari qualité yoo xam ne nee na képp koo xam ne benn ci yooyu nekk na ci yow ëllëg yàlla dina la defal teraanga gu toll ne bu nit ñi taxawee ci suufu tàngoor wu metti wa yowmal qiyaam yowma yaqumu naasu li rabbil alamin kenn du am ker ku dul yàlla yàlla dina la boole ci ñi nga xam ne dina leen teralee jële leen ci tàngoor wi yóbbu leen ca ron arsh ca ron arsh keral leen foofu te bis boobu ku yàlla keralul doo am ker ku fa bëgg ker kon déglul yi nga xam ne wax na ko ne nit ki boo ko melawoo fii ci àdduna yàlla dina ko keral ëllëg yowmal qiyaama ci ker googu bi mu ci mooy al imaamul njiit boo xam ne njiit bu maandu la jiite ba noppi maandu yombul ndax nguur dafay bewloo ndax doomu aadama bu amee kàttan yor nguur rek dafay daal di bew comme na ko suñu borom subhanahu wa taala waxee an raahu staghna inna al insana la yatgha an raahu staghna nguur bu bari force bu bari pouvoir bu bari baaxul ci nit waaye nag buñ ki joxoon nit ki loolu kilifteef ba noppi ànd ak loolu mu maandu ca loolu teraanga bu la te li tax yonente bi alayhi salaam jiital jiital loolu mooy ne li gën a mën a yëwaneel kaw suuf mooy njiit lu maandu waaye li gën a mën a yàq ci kaw suuf yàq nekkut nit ñi ndax ñun dañuy dund en société suñu dundee duñu dund ci anarchie li ñuy dund mooy ay système la yoo xam ne système de gouvernance la yu ñuy jiite dañuy tànn ñenn ci ñun am ci ñoom confiance jël leen jox leen suñuy mbir ne leen jiite leen ñu bu fekkente ni ak maandu newul ci seenu njiite bokk na ci li gën a mën a yàq dund doomu aadama yi moo tax suñu borom subhanahu wa taala waxoon ne inna allaha yamurukum an tuaddu l amanati ila ahliha wa ida xakamtum bayna annaasi an taxkumu bil adl yàlla da leen a da a sant ne leen li ñu leen dénk ci ay koolute ngeen fexe ba sàmm ko delloo ko ña leen ko joxoon waaye bu ngeen di atte ci diggante nit ñi ngeen atte atte ci mandute loolu ñu jiite la ci yàlla di waxal kon njiit lu maandu yonente bi alayhi salatu salaam ne ñi nga xam ne ñooy maandu ci seen li ñuy jiite fii ci àdduna di maandu ci seen njaboot di maandu ci lépp lu ñu yilif yàlla dina leen defal ay tooguwaay yoo xamante ni bi yu kawee la yoo xam ne ci leer lañ ko defaree yowmal qiyaam yàlla jël leen teg leen foofu ñëpp di leen seen kon jiite dara ba noppi maandu donte sax benn borom xam dafay wax ne ñaari xale ñooy jongante ñu jiital la ci loolu nga leen di contrôler seen diggante nee na day dugg ci maandu te kon njiit lu maandu mu daal di ciy tegaat shaabun nashaa fi ibadati rabbihi fi ibadatillah mu teg ci ci beneen critère bi ndaw loo xam ne dafa màgg ci jaamu yàlla mu tudd ndaw tudd màgg ci jaamu yàlla lan moo tax mu jagleel ko ndaw ndax ndaw dafa nekk benn étape bu sensible ci dund doomu aadama nekk étape boo xam ne ci la nit ki di dajale kattanu yaram ak bànneex bu tar ci yaramam ci la ko àdduna di woo ci la ko àdduna di jublu ndaw loolu bu ko yàlla baaxee mu góor góorlu ci tentation yooyu yépp mën ko gon ko ginnaaw jël ndawam loolu jagleel ko yàlla yàlla dina ko defal teraanga gu toll noonu yowmal qiyam ndax sacrifice boobu nga xam ne def na ko bi mu nekkee ndaw mënoon a jël ndawam def ko ni ni ni ñu jàppee ndaw ñi tey parce que suñu problème mooy dañoo gëmloo ndaw ñi ne boo nekkee ndaw da ngay dox sa ndaw mooy sag ndaw kattan gi nga am jël ko nga caaxaanee ko boo demee nag ba nga xam ne ndaw ga newatu fa nga soog ne léegi dangay dellu ci yàlla jamono bi ngay nekk ndaw jamono jooju nga war a gën a góorgóorlu ndax lépp looy bëgg ci lu baax rek boo demee ba nekk mag tàggatu ci bi ngay ndaw boo demee ba nekk mag mu yomb ci yow yonente bi alayhi salatu salaam ne woon xam seen xab la xams na nga profitoo ci juróom balaa juróom di ñëw profitool ci sa ndaw balaa ak mag di ñëw ndax la nga mënoon ba ngay nekk ndaw boo demee ba nekk mag dootoo ko mën kon góorgóorlu ci bi ngay nekk ndaw kon ndaw loo xam ne dafa góorgóorlu ci jaamu yàlla kon nañu waat xel suñu ndaw ñi ci tàggat leen ci yar leen encouragé leen ci lu baax xamal leen ne nekk ndaw terewul góorgóorlu ci diine terewul góorgóorlu ci lu baax civilisation occidentale bii di leen nax bëgg leen occidentaliser wan leen ne bu ngeen nekkee jeune seen yitte yépp moo war a nekk tëgg ak fecc ak way ak caaxaan ak def yu ñaaw loolu warul nekk seen jubluwaay xam leen li tax seen borom sàkk leen indi leen fii ngeen góor góorgóorlu ci loolu góor góorgóorlu ci liggéey liggéey bu baax ci seen àdduna amal njariñ seen askan amal njariñ seen réew mais bu leen jël seen ndaw tasaare ko yàqate ko ci loo xam ne ay caaxaan kon ndaw lu màgg ci jaamu yàlla loolu nekkaat beneen sakk ak beneen mbir boo xamante ni bu rëy la beneen mbir boo xamante ne bu màgg la yonentu bi alayhi salatu wasalam tudd ko waaye mu daal di tuddaat ne war wa rajulun qalbuhu muallaqun fi l masajid ñetteel bi mooy koo xam ne waa joo xam ne xol bi daa taqo ci jàkka yi xol bi daa taqoog jàkka daa bëgg jàkk foo ko seen ma ngay dox di jëm ci jàkk ja saa bu ñu noddee ma ngay dem ci jàkka ja bu demee ci jàkka ja sax dafay toog yéex a génn ndax bëgg gum bëgg jàkka ji du ndax jàkk ji dañ koo ventiler mu feex du parce que waxtaan ba ca jàkka ja daa neex grand place ba déedéet waaye bërëbu jaamukaayu yàlla ja dal ga fa nekk ak tudd yàlla ba fa nekk ndax looloo tax ñu yëkkati jàkka yi fii buyutin adina allahu an turfaa la yàlla waxoon wa yudkara fiha smuhu kër yi nga xam ne mooy jàkka yi ñu yëkkati ko dañ koo yëkkati ngir di fi màggal yàlla ak di ko fi jaamu kon ka koy bëgg da koy bëgg ngir jubluwaay boobu nga xam ne moo taxoon ñu tabax jàkka ja loolu nag ku mu nekk ci xolam day mandargaal ngëm yàllam moo tax xadis ba waxoon ne ida raayta ida raaytum rajula yaataadu al masjida fashhadu lahu bil iman bu ngeen gisee nit ka muy dem ci jàkka-jàkka ñëw saabu ñu dee julli mu dem taxaw ca yittewoo jàkka ji seedee leen ko ngëm yàlla xadis ba am na lu ca ñàkk wér ci niñ ko nettale waaye sens bi maanaa bi maanaa bu wér la kon loolu mandarga la ci ngëm yàlla nit ki moo tax mu wax ne rajulun qalbuhu muallaqun fi l masajid mu waxaat tamit ñaar ñoo xam ne rajulaani tahabba fi llaahi ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi ñaari nit ñoo xam ni dañoo bëggante ngir yàlla ànd ci kaw loolu tàggalikoo ci kaw loolu mu ne ñoo ñooñu tamit bokk nañ ci ñi yàlla di defal teraanga boobu mooy bëgg te yàlla tax booy bañ nga bañ te yàlla tax loolu ku gëm yàlla rek moo koy def yonentu bi alayhi salatu wasallam daf doon wax ne aw ura al iman al hubbu fi llahi wal bughdu fi buum bi gën a dëgër ci buum nga gëm yàlla yi mooy bëgg ci yàlla bañ ci yàlla ndax ku yàlla màgg ci xolam bàgg ci moom fenn fi rek mooy dem ba lépp lu muy bëgg mu koy natt ci yàlla lépp lu muy bañ mu koy natt ci yàlla ndax nit ñi yeneen nattuwaay la bëgge bëggee imma seen i intérêt wala seen i bëgg-bëggu bakkan lu dëppook seen bëgg-bëggu bàkkan bu ñuy bañ itam ci loolu la ñuy bañ léeg ñu bañ nit fekk sax kooku moo leen raw ci yàlla waaye daa dëppoowul ak ni mu mel daa dëppoowul ak li ñu bëgg mais yàlla santu la loolu yàlla dani la koo xam ne waayam la nit ku baax la ci digganteem ak yàlla bëgg ko ngir yàlla kon bu fekkee ci yàlla ngay nattee di xoolee ci yàlla da ngay bëgg ci yàlla di bañ ci yàlla waaye du yeneen considération yi nga xam ne moom la nit ñi di def tey ñiñ fiy tàgg ñu ci bëri ci nit àdduna yi ñuy wax di co di leen coow aka waaye aka wax seen mbëgg natt leen ci yàlla nga xool ba xam warees na leen a bëgg am déet ci ngay xamee ne nit ñi considération yi ñuy bëggee xooluñ ci yàlla waaye ku dem ba nga xamante ni yàlla ñor na la ñor bu toll ne doomu aadama bi boo gisee ci moom yàlla mu neex la ak nu mu mën a mel boo gisee ci moom mooy yàlla ak dëddu yàlla ak wan yàlla ginnaaw loolu naqari la ba tax nga bañ ko ci kaw loolu ak lu mu la jege jege jege kooku ngëm yàlla mi ngi ci xolam waaye bu dee yow say bëgg-bëgg nga jiital ci kaw li ngay xool ci yàlla ah loolu moom boo boobaa itam ngëm yàlla gu néew doole rek la kon ñaara ngoog ñu ànd ci kaw bëgg yàlla loolu bokk ci yi nga xamante itam yàlla dina ko dina teral ñu ko def ci bu ëllëgee ci taxawaay boobu noonu mooy ñi nga xam dañuy ànd fii ci kaw suuf te seenu ànd yàlla moo ko lal mu daal di ciy teg wa rajulun talabathu imraatun daatu mansibin wa jamal fa qaala inni axaafu mu daal di ciy teg benn waay boo xam ni ak soxna da koo sàkku ci boppam ngir caaxaan ak moom mu melal soxna bañ soxna soosu ko di ko sàkku ñaari melokaan yu doy waar daf ne soxna soosu di ko sàkku daatu mansibin wa jamal boroom cër la borom baat la borom juddu la borom askan la borom personnalité la ca société ba mu dëkk loolu rek doyul wa jamaal waaye tamit borom taar la nga xam ne kon yi nga xam ne mooy puus nit ba muy bëgg jigéen mi ngi ci moom daje na ci moom amul lenn lu dox diggam ak mu wuyu ko ca lam koy sàkku di ko ca woo muy ñaawteef boobu nga xam ne mooy ñaawteefu njaaloo lu dul benn bat mooy inni axaafullah damaa ragal yàlla ragal yàlla ragal gisub yàlla xoolub yàlla ci man ak xam gi mu xam li ma nekk moo tax du ma la wuyu ci li may woo kon dem ba am ci ragal yàlla loo xam ne boo wéetoo nag ay bàkkaar yoo xam ne mën nga koo def te lenn ci mbindeef yi du ko xam nga jomb koo def ndax xam ne yàlla mi ngi lay gis loolu lañ tuddee muraqabatullah loolu nag faaw nit ki di teewlu yàlla di teewlu yàlla ci xolam di teewlu xam yàlla ci moom ak gisub yàlla ci moom xam ne bu wéetee itam bu newoon ci lëndam itam bu ko kenn gisul bakkanam di ko woo ci ay ñaawteef yàlla mi ngi koy gis loolu faaw nit ki góorgóorlu ci boppam di teew lu loolu ci boppam ngir mën a yar jikko bu mel noonu ci boppam waaye ngëm geeg mbaax gi yépp ci biti la fekk nit ñaa ngi lay gis yaa ngay moytu yaa ngay góorgóorlu li fekk nit ñaa ngi lay gis boo wéetee foo xam ne kenn gisu la nga def lu la neex boo nee yaa ngi bàyyi xel sa borom des na mu daal di ciy teg wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa axfaaha xatta la taalama shimaanuhu ma anfaqat yaminu mu teg ci koo xam ne daa génne ab sarax di ko joxe waaye nëbb na koo nëbb nëbb nëbb ba nga xam ni loxo càmmoñam sax bu doon day xam munta xam li loxo ndeyjooram di joxe loolu mooy ixlaas loolu mooy sellal loolu mooy dëggu di joxe te li ngay joxe soxlawuloo ci ñun la merci wala jërëjëf li nga ci bëgg rek mooy ngërëmu yàlla li nga ci bëgg mooy fayub yàlla nit ñi xam ko wala ñu gis ko wala ñu joobe la wala ñu lay wane ci télé bi yitteelu la yàlla moo la yitteel yàlla moo la ñor joxe bu mel noonu nga xam ne joxe nëbb dëggu la aar sa bopp la protéger sa bopp la ndax léeg-léeg benn exposé sa bopp bi da lay fitnaal léeg-léeg nit def ci lenn ci mbaax ba mu koy def sa xëy na yàllaa taxoon waaye wane na ko ci benn façon bu tax nit ñi xam ko bu ko nit ñi xamee ba coow li jug rek soo moytuwul yéeneem daal di soppeeku seytaane fitnaal moo tax léeg-léeg bokk na ci li ngay aaree sa bopp ndax nit da war a am ñaaw njort ci sa bopp danga war a ragal di exposé sa bopp ci lu lay fitnaal bokk na ci li aaree sa bopp mooy sa yenn jëf nga koy nëbb ndax léeg-léeg nit ñi li ñu lay xamal ci sax mbaax dañ la koy yàqal yàqal bi mooy léeg-léeg dañuy ñëw di la ko waxal di la sax waxal loo deful ba soo moytul nga mujj di gis sa bopp wala budul gis nga sa bopp itam soo moytul looy defate bëgg ñu xam ko ngir ñu la koy waxal ak di la ko yëkkatee day mujj nekk bànneex bu nekk ci sa xol boo xam ne danga koy faral di bëgg naam yaa ngi def lu baax waaye am na leneen loo cay sàkku ci nit ñi li ñuy xam ak li ñuy wax loolu nag day yàq jëf kon sellal ak dëggu ci jëf mooy waral nit ki jël ko nëbbu ko ba kenn du xam ku dul xëy na kim koy defal ak yàlla séntuwu ci leneen lu dul loolu mu daal di koy tëj ak rajul koo xam ne dafa wax ne wa rajulun dakara allaha xaaliyan fa faadat aynaahu waa joo xam ne daa wéet fu kenn nekkul mu fàttaliku yàlla mu tudd yàlla teewluwaat mag bu yàlla ci xolam ay bëtam daal di tuuru ay rangoñam tuuru mooy jooy ngir fàttaliku yàlla loolu jullit bu ne war na ci yar boppam xol faw yàlla màgg ci faw nit ki am neex neexu fàttaliku yàlla ci xolam bu tax yëg-yëg yooyu bu nekkee ci xol bi am sentiment bu yéeg ba àgg ci bët yi borongoñe di tuuru sax du ko tey loolu lu am solo la lu nit di war di yar boppam la mu nekk rangoñ yoo xam ne dara tuuru ko lu dul fàttaliku yàlla bëgg yàlla yaakaar yàlla ragal yàlla tax nit ki di yëg ne ay rangoñam mi ngi tuur ndax ñu ngi koy wax yàlla wala ñu ngi koy tuddal yàlla kon daw yaram dëgg dëgg dëgg dëgg ci nit li koy indi si li ñu tuddee chair de poule mu yaram bu mel ne luy daw li ko war a mën a yëngal ci jullit dëgg bu dee ngëm yàlla dëgg dëgg àgg na ci xolam ci yàlla la war a jóge yàlla moo war a def loolu ci nit ki kon yëg-yëg boobu dafa am solo moo tax yonente bi alayhi salaam ne woon aynaani laa tamassahuma naaru abadan aynun bakat min xashyati llah wa aynun baatat taxrisu fi sabilillah yonente bi alayhi salaam ne woon ñaari bët a ngi ni yoo xam ne safara du ko mus lakk ñaari bët a ngi ni yoo xam ne safara du ko mus a lakk yàlla xaraamal na safara ci ñaari bët bët boo xamante ni jooy na ngir ragal yàlla jooy na ngir fàttaliku yàlla ak bët boo xam ne fanaan naa surveiller ak di garde ci yoonu yàlla ñaari bët yooyu seen i borom duñu dugg duñu dugg mukk safara yàlla nañ ko yàlla defal اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارحم المسلمين الميتين ونور لهم قبورهم اللهم اغفر للأحياء من المسلمين ويسر لهم أمورهم allahuma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain qumu ila salatikum yarhamukum allah membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyób lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union. dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam.